ci bët dama ko ne monsieur Samba Sall je suis victime complot boo xam ne Macky Sall ci boppam moo nekk ci bopp bi ànd ceeg Antoine Diome ak soxnaam ànd ci ak Serigne Bassirou Gueye ànd ci ak Mamour Diallo te li may wax yépp am naa ci firnde bindal mu ne ah non lii duma ko bind ma ne ko di nga ko bind duma ko bind ma ne ko di nga ko bind samay avocat jóg ne ko c'est son droit ñu xëccoo 10 minutes moo xam ne du bouger mu ne greffier bi bindal ma ne ko de jeexagul des na beneen mu ne ma ma ne ko je ne vous reconnais pas comme mon juge yow parce que vous êtes un juge faible malléable à la merci de tout ce que je viens de citer te li ko wane mooy dossier 94 milliards yi nga xam ne man maa man maa ko dénoncé tu l'as classé sans suite te jamono jooju OFNAC def na un rapport de plus de 50 pages ne Sonko a raison sur toute la ligne on n'a qu'à poursuivre ces gens-là kon yow mato pour mën a instruire dossier bi mu ne ah dafa jóg taxaw ne ah bii moom duma ko bind ma ne ko di nga ko bind <laughs> vingt minutes ñuy xëccoo moo xam ne du bàyyi mu ne waa ji bindal loolu moo nekk ci dossier bi tey d'accord te man loolu mooy li may wax foofu laa ci yem la ca des ñoo créé seen dossier nañ ko gérer ah. parce que nag dossier bi am ñi ci nekk ñëpp ci complot ba ci général Moussa Fall mi ah ne ci complot bi laajal laajal enquête interne bi di am gendarmerie ah, bu ñu egg ci procès moom lu mu ci def général Moussa Fall général Moussa Fall ci boppam moo jiite complot bi wala loxo mu ngi ci biir xam nga man li may wax dama koo ragalul su dee Macky Sall laa ragalul dudd ay nit keneen ak keneen moo tax ñu gaawantu jëlee fa Tine promouvoir ko moom ba pare dem ut ay ngàndaay ne ko su affaire yëngatoo xeexal waaye ñoom mënuñu dara contre le peuple man gis nga dossier bi dama la ci raconté benn anecdote bi coow amee dafa am ku ñëw gis ma ne ma woy léegi sa combat dafa jël dimension internationale te yow gannaaw nga manqué il faut nga am réew moo moo adossé wu te nag jàpp naa ni riche doole gi mu am te gars yi moom la ñu ragal et cetera ma ne ko sëñ bi ma ne ma ne ko du ma adossé wu ci benn réew man xaw ma benn président de la république xaw ma benn multinational gis nga gannaaw yàlla mi ma gëm peuple Sénégal bi laa dénk sama bopp su peuple bi ne waaw waaw la su nee déet déet la du ma dem ci kenn te peuple boobu moo ne woon déet te peuple boobu tey la gën a mën a taxaw ni déet li ci des nag dossier bi ma delloo wax ko gisuma ci àdduna ku ci condamné a condamner Ousmane Sonko lu toll ni tarfata yéen ñaar yi moo mun a am non-lieu classement sans suite te buñ ci def nag fa la dossier boobu di commencer. Ah ndax ñi ci bokk ñëpp. dinaa leen topp ñoom ñëpp ils pourriront en prison. ne serait-ce qu'à la mémoire des 14 personnes yi nga xam ne seen complot bu ñàkk fayda bi rey na et ne serait-ce que pour le combat bi nit ñi mëne du rek jigéen ñi de ñun ñëpp ko

ñu ngi koy wax loo mu naan ay xaru laa bëgg ak essayé naa xaru dinañ ko liquider su moytuwul ay mbokkam nag laay waxal bu ñu fexe ba ndaw si ñoom ñoo ko yor ndax comme nee nañu police a koy gaar kon mi ngi loxo ci Macky mi ngi ci loxo Macky Sall nañu fexe ba ndaw si karaw sax bu mu ko manqué muy benn ñaareel buñ ko génn réew mi parce que ay je suis à l'étroit mënuma taxaw sax sama balcon euh, damay dama bëgg génn réew mi plein nga plainte jigéen mu dem juge bi jël responsabilité am classement sans suite vous avez bu ne nañu dem procès ñu dem procès. Avez-vous nga procès. procès procès. Mhm. kon mais juge boo révoqué d'accord ci moom. moom la def. révoqué mhm. dama ko ci fait dama ne juge yow jël nga position ba pare sur un dossier mënatoo am objectivité waaye lan moo waral dossier bi ñu téye ko ba léegi ba pare yebal ay nit ci télé ñuy wax suuf suba ngoon moo tax ma ne la depuis le début j'ai dit dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la un dossier politique ne se règle pas judiciairement. waaw ci loolu est-ce que yaakaaroon ni mars 2021 nga Macky Sall daa duma woon ngeen ko période yaakaar ngeen teel lâcher la pression lu tax moo ko mooy yooyu am na benn mémorandum boo bindoon am saxte jël contrôle judiciaire gàll ko boobu ba léegi dematoo ak fii toll woon la presse ba nga xam ni peut-être faasu réew mi ak moom ni mu yoree réew mi dina soppeeku da ngeen lâché période non non non non gëw ma ko xam nga bu ci njëkk bi mooy man de maa ngi dem ak ki ñëw di participer ay élection di dem fu ma neex waaw mais génnoo réew waaye non xam nga nee naa la man génn réew mi saa su ma demee ba jàpp ni dama war a génn réew mi li ma war a def naa ko def mosuma nekk tukkikat ñëpp xam nañ ko mais c'est que waaye jamono jamono jamono bi yooyu di xew waa dafa am ñaari programme yoo sumboon eh. benn bi nemmeeku tuur fii Sénégal.